xam nga liy expliquer tout ce chamboulement la li euh, jóge ci euh, li ñu li ñu jàpp gendarme li ñu jàpp ak yu demee noonu loolu lépp dafa am lu ñuy lu muy lu muy tekk dafay tekki impréparation li l'immaturité et l'inexpérience de ce parti la xam nga su fekkee ne yow da nga da nga ñëw y a quelqu'un qui est là devant toi décliné wul identité am takk brassard am audace filmer la war nga mën a comprendre que ne war nga mën a tey ci ay mbiram. daa warul sax non un instant non. dafa warul film moo warul. et l'élégance de me laisser continuer monsieur Diagne. alors Diagne s'il vous plaît. xam nga non s'il vous plaît. mais non mais émission bi dafa plateau bi dafa am yoon tamit. li ma ñu ah? li ma bëgg ni comprendre il faut le ñu comprendre que mm. sànq mi ngi wax affaire wu. il semblerait que y en un policier moom moo nekk euh, chauffeur bi bi bi doon dawal bus bi nee nañ policier la. mais il y a combien de de de de de chauffeurs il de vendeurs de café il y a combien de vendeurs de was mm-hmm. le renseignement nan lay fonctionner suñu la ne kii gendarme boobu noonu dafa takk brassard un gendarme yow comprendre nga gendarme boo war a takk brassard Ousmane Sonko d'exercer son travail donc ñu war a xam si s'ils étaient s'ils étaient avisés waroon nañu mën a tey xam ne kii ni c'est un agent c'est un agent qui fait son travail. alors mais d'accord ñun amul pas apparaître. par rapport par rapport par rapport au choix par rapport au choix. Mm. par rapport au choix par rapport ak ce qu'on dit parce que xam nañ li ñuy wax on maîtrise notre sujet. par rapport au choix par rapport au choix. Mm. le choix n'est pas difficile. le choix cest ñun on a le président de la république il a un agenda le président de la képp kuy yàkkamti moom moo la waroon gën a yàkkamti parce que bon bi mu demee jël sa sa sa sa sa sa sa discours héroïque et historique dire que du dem élection il il va de soi que dina am un candidat mais ce candidat là dafa am ay critères de sélection et ñu ngi ci travail bi le moment venu il va nous dire quel est candidat